di wax ni axlan wa saxlan ànd bi rafet na kontaan naa trop di nuyu sous-préfet bu bees bi di ñëw fii entrant sëriñ Ababacar Ibra Maar jërëjëf wax bi ma dégg ci moom dal na xel te tànnuñu ko nii rek parce que man bi ñu ma fi andi foruñ ma si mbedd bi àndi ma fi waaw loolu da ngeen si bàyyi xel nu baax a baax ku ñëw fii yëpp dafa am mission bu mu fi war a dox gëm naa ni dina fi réussir mission am ndaxte jaar-jaaram moo tax ñu andi ko fi ah li ma doon ñaan rek la ma yàlla defal dañ ma ñaanal te ñaan bi dafa nangu wax bi mooy loolu ndaxte keroog bu président jëlee décret ma dem fekk sëñ Mountakha ajjuma ju ñoo ko jullandoo ma ñëw ma tàllal ko sama ay loxo ma nekk ginnaaw président de la république dafa jël décret andi ma si sa dëkku maam ah damaa ñëw tamit si yow jël si ndigal mu ma may naa la jox naa ko mi ngi koy wax maa ak Serigne Bass ñoo moom ma introduire bés boobu sax sama loxo ma ne ko ñaanal ma. ndaxte kat ñëw naa si jamono bi nga xamante ni bi contexte bi dafa diis ndaxte màggalu Tuuba taxawoon na waaye am na leneen lu taxaw sama kanam mooy élection présidentielle te ñëpp gisoon nañu ni Tuuba nu fi élection yi doon mel ma ne dama bëgg nga ñaanal ma yëpp yàlla def si jàmm yépp tamit yàlla def na si jàmm kon ñaan bi nangu na moo tax ma ne yàlla na fi yàgg te ma àndanteeg ñoom nag liggéey ak maire ñoom ñëpp ñaari atu yàlla laa fi jot a def alhamdulilahi rabil alamin dama doon ñaan suñu boroom su may jeexal ma jeexale fii ndax ne damaa dem dem a dem ba ma gis ni suñ mu fi jëlee woon yóbbu ma beneen arrondissement ci Sénégal danaa jàpp ni dañ ma sanctionné keroog maa ko doon wax Serigne Mountakha Bassirou Mbacké seen kanam day mel ni si man ku yéeg ñay wàcce ko dem di wari mbaam loolu lay xaw a si man nag après ndaxte dëkk bi nu mu toll boo ko yoree téye ko liggéey si ñu xëy suba jëlee la feneen doo xam fan ngay jëm sax final yàlla may na ma loolu ma am si ndam ma yeggale ba fii ma war a waaw warukaay boobu kay bu ma ko yéegee naa dem rek xooli ji leneen rek. amin loolu moo fi nekk tey ji ma leen di gërëm yéen ñëpp mission bi loolu la woon seede ngeen ko rafet na. di sant bu baax ginnaaw bi ma nuyoo préfet du département ak bépp kilifa bu toog ci sant bu baax le président la République ak monsieur le ministre ci. tànn bi nga xamante ne bii moom la ñu tànn pour ma ñëw fii comme sous-préfet de Ndar pour liggéey liggéey bi nag daanaka maa ngi ci bëgg fen bi ndax moom laa jàng at yi ñu yépp moom laay liggéey te jàpp naa ne xam naa kon li ñuy yeesal daanaka du fi am liggéey bi li mu laaj xam nañu sàrt yi ko tënk xam nañu ni ñu koy defee béréb bii moom lañ koy defee Fongolimbi moom lañ koy defee Kaye moom lañ koy defee feneen donc du lu ñuy yeesal amaana coppite bi ci am mooy dëkk yi ngay dem ñoo wuute Kaye bokkul ak cees Thiès bokkul ak Dakar Dakar bokkul ak daaw te bu ñu ne daaw Touba moo ciy génn muy dëkku diine mu nekk dëkk bu nga xamante ne bii ay kilifa diine ñoo rek ñoo fi nekk may jël témoignage mbooloo bi ne lépp loo xamante ne bii wàccuwaay bu ñu war a am ñoom lépp loo xamante ni bii war ma la buñ leen war a jagleel te état war leen koo jagleel bu ma ko yokkul duma ko wàññi. di ñaan ñi nga xamante ni bii ñoom laa seqal liggéey bi leen tàllal loxo ne pare naa bu jëf leen teeg ñoom jëf leen ci bu rafet ndaam nag ku ñu fi indi say mbokk dinañ am ñaari yëg-yëg yi dina am ñoo xamante ni bii danañ la santale yàlla ndax li ngay ñëw ci bérébu diine te am ay fonctionnaires yu liggéey ba retraite bëggoon ko te amuñu ñooñu man maa ngi sant yàlla ci loolu amoon na si ñoo xamante ni bii dañ leen dinañ la xaw a ñeewantal ndax dëkk bi ni mu toll ci daywaay ndax liggéey bi na mu toll waaye may bëral nit ñi aussi que ñëw naa fi ak xel mu dal xel mu dal laa fi ñëwee ndax lu mu diis diis diis diis boo ko yenoo yow kenn kese lay diis te jàpp naa ne fii ginnaaw li muy dëkku diine te ñëpp ràññee li nit ñi ràññee ci Touba mooy dafa am ay nit ay taalibe yoo xamante ni bii dañu jóg feggoo ak mairie bi feggoo ak état lépp luy liggéey ñu mu tëddee ñu sumb ko lépp lu état liggéey ñu jàpp ci. tàllal naa leen su may loxo pour que euh, liggéey ci liggéey bu mucc ay ànd bi rafet te lalu si dëgg ndax dëgg kat aussi moo koy yombal ndax moom la yàlla santaane dëgg moo tax suñu maam xaadimul rasul ba tubaab bi ñëwee mu taxaw na leen li ngeen nekk du dëgg. amaana doole ngeen yaakaar ne moom ngeen am mais du dëgg moo ko yóbbu Mayombe moo ko yóbbu Gànnaar yóbbu ko Thiéyeen yóbbu ko Diourbel te moom mujj am si ñoom dëgg kon nag nañu ko mooñee li ñu fiy def lépp rek mooyal ànd aussi ma jàpp ne li koy yàq mën nañ koo moytu li koy yàq mooy nga teg nit ki lu mu mën mu bañal la ko walla nga teg nit ki la mu mën gàntal mu gàntal sëñ ab kon nag ci kàddu yooyu la bëgg lal li nga xamante ne bi mooy sama liggéey fii ci Ndar